ana ñu naan doomu réew fii ana ñu naan doomu réew fii ma ne ana ñu naan doomu réew si Pikine xanaa fi mooy Pikine waaw mbir maa ngi nii de ana ñu naan doomu réew fii ana ñu naan doomu réew fii ok. lan ngay wax lan ngay wax lan ngay wax. moo bëree daan ñu bu yaroo ñu daan ko ndànk ñu bi dem foofu. délégué soirée Wally Seck. waaw waaw waaw bu la jàppale xale yi. ñu lay xaar waaw. ñoom seen i maam dañoo voyagé jugee Guinée. alam mbër mi alam mbër mi. mbër mi dugg si ne. kenn xamul mbër mi dugg si ne naaj. ñu leen di jox dig daje si kanam. kanam nag waaw. kenn ku dul la waxee yow. la wala ente bañ na ngoñ dem te ku sa baay bi eh ama eh ko kër eh. bu ko ñaaxul coore te la fañ kum kat ku ne jege loolu demal na loolu ko amal ko di ma koy daan barki borom Touba moo walaay mu lo kase mu lo seel ku dul loolu guddi ko mo mbake ama ba amul bëre bu mën a daan tour mu yem ko benn yoon. parce que yàlla def ah mais yaakaar nga ne combat bi dina tax. ama fi lay bàyyee bëri fi lay bàyyee bëri. fi lay bàyyee bëri lu mu indi. am na solo kenn duñu ko raw barke alxuraan. loolu ñaar ñaar